الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله قواء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وذكر اسم ربه فصلى ولا يقوم وربها إن هذا لفي الصحف الموسى الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر والليل إذا يغشاها والسماء وما بلاها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر kaddu yi nag bi ci jiitu mooy sant yàlla bii nu yàlla mayee wér akuk man akuk tal ba ñu mën a jooxe ndigal li nga xam ne ci lañuy bàyyi koo démb muy matuk weeru koor yàlla bu mu nekk suñ mujj koor lañ ca jot a def lépp mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu te dencoon na ko fu yàqu du yegg sëriñ baa ngi nuy ndokkeel di ñu dénk nag ay kàddu di ñu xamal ne bu yëggutoo mu ngi doon séentu weeru koor mi ngi nii duñu tàggu la muy tegtale nag mooy lu nuyoo rek tàggoo lépp loo séen bopp ba léegi tey cat la romb la su dee loo xam ne mën nga ca yóbbante nanga gaaw ndax du nekk la muy tegtale it ba tey mooy wane ne am na weer wu mat sëkk woo xam ne yées na ci suñu dund bis ni ki tey nañu fexe ba gan googu fi ñëwoon di weeru koor gan moom mënees na ko tere lu nekk ba mu des dem nettali lam fa fekk buy nettali yàlla nañu nettali lépp di lu yiw yonent bi nag sallallahu alayhi wa moo daan ñaan bu weeru koor di dem naan allahuma la tajalhu axira al ahdi min siyaamina iyaa fa in jaaltahu fajal ni marxuman wala tajal wala tajal ni mahruuma mooy yàlla bu mu doon suñu mujj koor ñi nga xam ne yàlla dogal na li muy dogal ci ñoom ba noppi yàlla na leen yërëm te ñun ñi fi desandi yàlla bu mu ñu xañ yoolu weeru koor bi kàddu ñaareel gi dénkaane Cheikh Mahamadul Fadul la woon daana wax ci làmmiñu boppam ba mu yàgg waxukaay ñëw mu di ko ca waxlu mu ñett muy ñu maase ci tuub di sàkk sarax tey balonte xaq tuub nag su weeru koor jàllee nga xam ne lay dem dem na kenn ku ne xam na boppam na futti kuwaat ca ñama ko war a wax xam ne ndigalu suñu borom moo fa nekkoon waaye ndigalu suñu borom day wéy ni weeru koor yu wéyee kon boog tuub suñu borom moo ko santaane ci alquran tuubu ilallahi tawbatan nasuha wa tuubu ila llahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun mooy nit ki xoolaat gannaawam la ko ca wóor ne mënoon naa gën a jag mu fas yéene rëcc ko te du ci tegaat tànkam mukk yàlla ne ko yàlla jàppandalal bu kenn def loo xam ne nag ci ay rëcc-rëcc moo xam mu jublu ko ca wala jubluwu ko ca ba defee ne yàlla du ko jéggal ahakay ku tuub yàlla jéggal ko qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru suñu borom mi ngi ñuy wax ci ku jot ci bataaxalu yonent bi ne yàllaa ko yónni na ko gëm te di dimbale ku mu war a dimbale ndax lii ñu ñuy ñu ñi ngi war a dimbale kat suñu leen ci dimbale wutit ëllëg si bi dañ koy saam seddale ko suñu ko naaw aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jaalakum fii falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir dellu wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm gu wér dee leen dimbale ñi ngeen war a dimbale ci seen teyu bakkan balaa bëy di wéy mbuus yaa ayuha alladina amanu anfiqu min tayibati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ard anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bayun fihi wala xullatun wala shafaa kon boog sàkk sarax sarax yaatu na dem na ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa dem na ba ci nit kiy joxe sax waa këram di ko dunde mën na caa am yoolub joxe as yoolub saraxe ba ca dolliku te moom lay jeexale mooy balonte xaq balonte xaq suñu borom nee na ku bëgg ñu di ko baal nay bale <clears throat> fal wal yaafu wal yasfaxu ala tuxibuuna an yaxfira allahu lakum fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah kon boog kenn ku ci nekk na xool moroomam bu fekkee jege na ko ne ko jàpp loxo te mu dëggu ci moom mu ne ko baal ma bu fekkee xam na ko ak bu ko xamut lépp ndax mën naa juum wax ci ab deram loo xam ne koo ko yëgu ko te yàlla dara du rëcc ci moom yàlla noonu yàlla boole jégal sëriñ bi nag nee na fi mu koy tëje mooy mi ngi ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom. may ko ak wér te yàggal ko fi te àggaleel ko naalam yëpp te saa bu geesoo nag gis ñu ci ginnaawam di ñaan mbooloo mi yëpp itam ñu ñaanal suñu Abdou Fatah mii nga xam ne moo fi toog suñu borom yàggal ko fi ba mu yàgg fee nekkal sëriñ bi moo mbooleem bokkam yi nga xam ne ñoom la fi dandal di ñaanal jullit yëpp ci réew mi ak bitim réew suñu borom dolli jàmm ji te def naataange ci réew mi te nawet bi nga xam ne moom lañu ñu jibi bi nee na mi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu doon nawet bu teel bu barkeel teñ muurloo ko ak mbooleem liggéey bu nit mën a def gannaaw bu jigee ci julli suñu borom defal ko ca barke ak yaatal ba kum ca bëgg dimbale dimbali mu mën la caa dimbali di ñaan jàmm ci réew mi bu baax a baax a baax a baax am na fi waaye ne ko yàlla gën a dolli di ko ñaan itam fépp fu ab jullit nekk ak fépp fu doomu aadama nekk di fàttaliku ci ñaani itam bu baax a baax a baax suñu bokk yi nga xam ne dañu fee bokkoon ak ñoom nekk daaw te seen yaafus yóbbuwu leen sëriñ bi nee na na ñëpp ñaan kenn ku nekk xam-xam ak pën xamut suñu borom dool yërmande ci ñoom ndax kat am na ci ñooñ fii la ñu bokkoon ak ñun nekk daaw wala feneen fekke bisub tey te fekke wuñ ko ren ñun ñii fi des nag du suñu njàmbaar du suñu ñawte mbaax suñu borom la yàlla nañu ko fekke déwén te mu ànd ak tal ak sago te suñu kilifa yit suñu borom bàyyi leen fi ndax ñu yomba àndal lañ yomb nañoo ànd àndal ni ko wolof di tënk rek dalu leen àndub mbët ak i bokkam nee nañ mbëtt ci waxi wolof na topp ña wax nag ku jaar ci kanamam mu ne yaa ngi far sama gunóor yi soo nekkee ci pegg mu ne da nga maa def moroom soo dee dox ci ginnaaw mu ne da nga am fa may jokki loolu dalul leen yàlla leen yàlla yàggal ci njaboot gi ci kanam njaboot gi te yàggal njaboot gi seen gannaaw